Professeur, oui. en tant qu'homme libre, peut-on définir les contours de sa propre liberté En tant qu'homme libre, définir les contours de sa propre liberté, oui, mais c'est toujours une définition qui pourra être parce qu'on se définit d'abord par rapport à soi, mais on se définira surtout par rapport aux autres. Et de toute manière, dire que cette liberté-là, elle n'est pas de l'ordre du donné, mais que cette liberté est l'ordre de la conquête, je suis parfaitement d'avis avec vous que je ne peux pas être libre en m'emmurant en moi-même, la solitude, tu en conviens avec moi. Mm. Et comme je ne me découvre jamais comme être libre dans la solitude, je découvre autrui Et si la découverte de ma propre liberté doit nécessairement passer par la découverte d'autrui, vous êtes d'accord avec moi que c'est une liberté, mais qui n'est jamais une liberté abstraite, qui s'incarne dans un cadre social, et en tant qu'elle s'incarne dans un cadre social, qui doit prendre en compte le fait que les autres sont des consciences posées en face de moi, les autres sont des libertés qui cherchent à être libres, et elles ne cherchent à être libres qu'en se définissant par rapport à moi, souvent avec moi, souvent par moi, mais très souvent contre moi. Mmh. xeetu xam-xam yooyu mu ngi fi mu nga ca Kocc Barma mu nga ci ñu léegi ah mu nga ca maam Limaamu Laay ah, mu nga ca sëñ Touba mu nga ca fële maam bay Niass ñoom ñëpp mu nga fa waaye comme ni ma ko waxee da ngay dégg xalamkat bi di ko jiin koraakat bi di ko jiin woykat bi di ko woy waaye jëfewuñ sëñ Touba jëfewuñ maam Alaaji Malick jëfewuñ leneen bu dëgg jotee ñu seeti leneen bu ñu leneen nag bu ko defee ñu war ànd boo xam ne du ànd te ni ko wolof di waxee ku wàcc sa ànd fekk borom mu toog ci àndam kon moo tax wax dëgg yàlla war nañu dellu ci xam yooyu nga xam ne xeeti ñu mel ni Kocc Barma yooyu léegi ñu fi wax wax dëgg yàlla mën nañoo jógee feneen waaye professeur buur du mbokk na fekk say mbokk jàppale la ca wala nga am fu lay doxale ko waaw na nga fekk yow nga xam lan mooy buur xam nga ko ci barma lu ci nekk jeexital bala ca doon xool